parce que son arrestation est liée et eh, à une dafa daje ak métitu jamono laal askan wi yëpp nag dëgg la am na ñu doon manifester ngir moom li wér te wóor daal mooy li ëpp ci ñu doon manifeste seen boolu muñukaay moo fees ñu ci bëri dañoo nekk ci ay écurie di entraîner daan am ay combat daan ci wane seen bopp. waaye nag daan ci amaale ay koppar yu ñu yóbbu seen kër yi loolu nag la leen xañ boobaak léegi daanaka mat na at Et cela, ils en sont privés depuis maintenant bientôt un an.